asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet chaîne football TV ñu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su defal leen vidéo après mo wax ci euh, suñu lettre yi parce que dañu jëm ci Coupe d'Afrique leneen lu xamantene ne jaaxal na ma lool pose woon naa ko question Aliou c'est nek ay joueurs yu xamantene ne à vocation défensive dafa bëri ci équipe nationale du Sénégal que ça soit bo jëlé euh, bo combiner défenseur yi nga bolé ak milieu terrain yi comme moy comme moy def le jeu xam nga ko posé woon Aliou Cissé question nek ce milieu terrain yépp dañoo défensif pa Matar Sarr moo si xaw a tane si offensif Pape Gueye touti touti quoi mais sinon.

coupe d'Afrique moom comme ni mooy coupe d'Afrique quoi bu fekkoon coupe du monde ça sama xel si lay gën a parce que force, noonu c'est vrai que bien défendre c'est bon mais avoir du jeu c'est c'est c'est lu donc contre Angleterre je pense que def nañu les frais et même euh, au niveau de nos petits catégories da ngay gis ne efficacité rien n'y a nañ ci kaw mais euh, parfois nous privilégions le jeu sur le milieu quoi xam nga euh, alors que dañuy am des joueurs même si nag bon Serigne Saliou Dia boo jëlee booy Mamadou Ngingue boobu rek ay teg numéro des joueurs. muy joué moom sax garaawul mais suñu équipe nationale Aliou Cissé bii loolu aussi tamit nekk na lu xamante ne war na ko xoolaat bu baax baax xam nga nu ma ko posé question bi mais à l'issue sax bés boobu mënu ma tontu parce que lan la mujjee tontu non animation bi la nang parce que mu ko doon wax ne ban jour moo war a nekk la lien entre l'attaque et le milieu loolu question bu important la da ma war a wax bon lii mooy système bi peut-être même si nag nit doo doo dévoiler say stratégie au grand public mais comme si mën nañ ko traduire après mënoon nga wax sénégalais loo loo teg si kaw bi Euh, li xawon dal sama sama xel mooy temps yi passé manqué en termes de de de stratégie en termes de dispositif tactique mettre trois défenseurs donc di andi surnombre di di monter deux pistons donc euh, les numérique bi rek euh, en termes de numéro en terme de joueur ci kaw offensivement parlant si c'est bien joué n'y a rien à dire donc si ce n'est pas bien joué on est obligé de jël Iliman Ndiaye teg numéro 10. c'est pas pour rien Aliou Cissé teg numéro 10 Iliman Ndiaye de parce que xam na ne dafa bëri ay joueurs à vocation défensive donc mënoo dem si benn compétition nga bëgg ay défensif di génne la si moo tax nag li ñu xaw a dimbali mooy que Coupe d'Afrique compétition la boo xamante ne saa yi compétition gaynde la compétition reyante la compétition mbëkkante la c'est des compétitions yoo xam boo dóoree benn benn 1 heure nga dem toog parce que Sénégal bu lu wekkee benn balaa ngay igaz dina doy wax trop xanaa mu day génn équipe mag te yenn équipe mag sax da nga ree ba tas ñoom ñëpp borog baa la ñu fiy Sénégal ñi fiy xool Sénégal ci bët joué yow di xool ñi di ñi lay xool ci bët di joué ak yow bariwul la plupart bi borog baa la ñuy joué t'as besoin de joueurs créatifs t'as besoin de joueurs yoo xam dañuy tirer et joueurs bëgg naa leen lool Lamine Camara mën na ko joué c'est vrai ah xam nga donc euh, maintenant man damay am jàngat ñoom de du ma ñëw rek yow yaay ak Lamine Camara ma ne non tout est rose du ma demee noonu de damay xam lu mu la bëgg bëgg tamit damay toog setaan xool sa mbir. Nampalys Mendy lu mu ko bëgg bëgg moo war a tuuti nangu naa bu par exemple bu la match contre euh, Arsenal daf may interpeller sur le vrai réel niveau de Nampalys Mendy maanaam au très très haut niveau même si c'est un match boo xamante ne mën nga si def analyse juum mais dafa def contre contre euh, Angleterre ma am ma jàngat si moom bu baax. mu def ko match bi ma jàngat si moom bu bay mu def ay match yoo xamante ne euh, Leicester la nekkoon contre équipe xam nga joueur boo ko bëggee natt natt ko si équipe bu ñu dajee ak ñoom lay def Lamine Camara aussi maa ngi koy natt mu ëpp sens mais loolu daf jàngale daf jàngal propre ak yow sa joueurs yi nga am propre ak coupe d'Afrique bi nga jëm propre ak yow Sénégal dañ lay xaare ak surtout Drogba xam dañ koy joué yow te Drogba boo ko bëggee la plupart du temps la la ngay def défensive da leen di génne dugal attaquant parce que amalatuñu la benn njëriñ te ñun malheureusement équipe yëpp noonu la ñuy joué ak ñun bala baa la yaakaar bu si kenn kenn du si taxaw coolee fi ne rek comme mbër yi xam ñëw la bu suba dama lay def li bu suba dama lay def li après suba du ñu def dara donc fii tamit noonu la demee rek coolee fi ne rek Guinée woo Gambie woo Cameroun woo ku si dee ak Sénégal mu la wax Guinée Salas xaw a kii te ba tey maa ngi xool. couche beeg Sénégal di ne damay football ak yow fekk la say camp dóor lu barewut donc loolu comme que barewul nag soit on met le système trois défenseurs bi xamante ne dañuy andi surnombre surnombre ci kaw offensivement parlant nga andi ay joueurs yu bëri am boo neexee nga ne da nga jël Iliman Ndiaye numéro 10 boo neexee nga teg Pape Matar Sarr avec un seul défenseur boobaa mën naa plus mën di laay considérer défensif parce que Pape Matar Sarr di bu ko il peut être plus que andi benen benen état donc sur ce trois défenseurs mooy dal sama xel mais pour loolu bokk na si lii lii lii lënt sama xel moy joueur à vocation vocation défensive bu fekkee coupe du monde sama xel dina gëna a la fekk mu nekk coupe d'Afrique propre compétition bi ak niñ koy gagné on sent que c'est des duels ay mbëkkantele bo dóoree ben 1-0 man nga gagné lolou motax tax non peut-être grawl mais amna ñu ne maam mais Mouhamed yow lolou ban jangat nga ci am mais jangat bi la ci am selon vous euh yeen jangat ngeen ci am propre ci dernier match yi parce que jé nañ fi Brésil jé nañ Bénin Soudan du Sud Mozambique on a des matchs yo xamantene man mën nañ ci jang mais man